parrainage bi sama nawle yi ma fi toogal yëpp parrainage bi sama nawle yi ma fi toogal yëpp kenn këyitu nit ñi di ko wëlbati ñi nga xam ne amuñu ñi nga xam ne dañu néew doole ñi nga xam ne dañoo sonn fii ci biir réew mi Sénégal ñu ñoo xam ne ñu ngi toog fële di nguuru tey ban heure la fi xale yi ñëw ban heure la fi ñuy ñëw ñu nga fële di nguuru nit ñi di sonn ñun Sénégal boobu la ñuy xeex président Macky Sall ku nekk xam na ko ku nekk xam na ne politique moo ko laloon nit koo xam ne loolu du dëgg du yoon donc nit président sunuy diine sunuy cosaan sunuy aada kenn gisul borom kër goo xam ne da ngay xiifal say waa kër da ngay maral di leen indil coono ku ne gis na coono bi am ci dëkk bi tey loolu mooy Sénégal bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg a dindi fii duma duma duma leen lu wóor ay patriotes lañu ay républicains condition que yoon li mu war a doxal mu doxal ko ñu yoon mukk wante nag dañu bëgg aussi yoon respecté ñu dañu bëgg président boo ko nekkee indi fitna ci sa réew loolu musiba la ci réew moo tax wax naa ko élection yi di jëm danaa ko génnee palais bii mu génn incha